On a constaté les agressions sur les députés. On a vu qu'on les a pris en aparté. Ils les ont amenés dans un coin, ils les ont bastonnés, ils les ont, ils, ils les ont violentés. Mais ça, c'est dommage. D'accord, ça, c'est dommage. li ñuy wax fii. mooy yéen a ko seetlu ak ñun. ma ni. yéen a ko seetlandoo ak ñun. ñoo fi yendu tey li fi xew mooy dañoo yeew sunu constitution dugal ko ci teen te ñi ko def xam nañu leen dañoo déggoo ci ginnaaw le peuple def li ñuy def tey bu ngeen gisee ñu toog ne muq mu xaaral ñemewuñu wax ñuy xëy di saaga ñëpp mooy pare woon nañ seetlu nañu tey coup d'état moo fi am ndax constitution di nday charte réew mi bi nga xam ne bii moo fixé le délai de mandat du président de la république doxoon nañ ko joxaat ko yeneen app doxoon nañ ko joxaat nañ ko yeneen délai lii mooy nekk li xew ci assemblée nationale bi yéen a ko seetandoo ak ñun ma wax ko les députés de l'opposition ceux-là qui veulent défendre la constitution on se sont réunis ensemble pour défendre li ñu dese woon ci constitution pour xeex li nga xam ne bii mooy nday charte réew mi

jaar ci assemblée nationale tuxul constitution ñaar yooyu yëpp coup d'état la moo tax may wax ni CEDEAO ñoo jàppale nit ki ñoo jàppale lii ci li fi xew union africaine ñoo ko jàppale ñoom ñoo jàppale union européenne ñoo jàppale et la France ñoo ko jàppale parce que dégg nañ ci seen communication waxuñu ni li waa def violé constitution la waxuñu ko de dañ ni weesu nañ loolu waxtaan leen ci gen jàpp ay date yu bees pour ngeen dem élection loolu mooy tekki ni ànd nañu ak moom ci la violation ci ni ñu doxalee constitution bi dëkk nag lii du ko defar jàpp nañ ay député duma nañ leen toroxal nañ leen uññ nañ leen seen sutura fii nga xam ne mooy suñu bërëbu liggéeykaay fii nga xam ne nee nañu fi la ñuy sàmmee seen worma fi la ñuy sàmmee seen ngor toroxal nit nag mënut tawee su lii fekk la sa kër duma na daaneel la toroxal la kurpañ la lem sa loxo gaañ la lii moo fi xew. Euh, mais mais élection yi élection yi dañ ko reporté jusqu'au 15 décembre. est est-ce que gëm nga date ferme boobu ñu wax. mani élection yi taxul ko mooy yokk mandat ci fi ne buñ ko moo xam ndax dañ koy tuddee dérogation moo xam ndax dañ koo tuddee suspension moo tax ndax dañ koo tuddee annulation luñ ko mën di tuddee. mooy yokk nag mais est-ce que gëm ngeen date bi est-ce que gëm ngeen date bi. mani ñun daal li ñu intéressé woon mooy nañu respecté constitution bi comme nag taxu na comme boote doomam. waaw mais dama ni ñoom am nañ seen responsabilité ndax dëkk bu amee feneen ca Niger bu amee feneen ca ca ca ca ca Burkina wala ca Mali dañuy taxaw ne lii coup d'état la. ah mais waxoon nañ ko bu yàgg dinañ ko def. waaw waxoon nañ ko bu yàgg dinañ ko d'abord il faut les motivations soulevées par l'exécutif et le législatif sont très graves. D'habitude, c'est les opposants et les, et les jeunes qui accusent la justice du pays d'être corrompue. Aujourd'hui, c'est le législatif et l'exécutif qui accusent la justice de notre pays d'être corrompue. D'habitude, c'est les jeunes et les opposants qui accusaient le gouvernement d'être corrompu. Aujourd'hui, c'est le président de la République, son groupe parlementaire et le groupe parlementaire du PDS qui accuse le Premier ministre en exercice du Sénégal, pas moins que d'avoir corrompu des juges constitutionnels. Et c'est sur ces bases-là, sur ces bases-là, qu'ils ont organisé leur semblant de coup d'État constitutionnel. Je voudrais dire aussi que le 2 avril, quel que soit ce qu'ils ont décidé, puisque l'article de la Constitution dit que la durée du mandat du président ne peut faire l'objet de modifications. Le 2 avril, comme Macky Sall lui-même l'avait dit à plusieurs reprises, son mandat prend Ce qui est déplorable, effectivement, c'est que la CDAO aurait dû condamner d'abord. C'est que l'Union européenne aurait dû condamner au lieu de constater. Mais on le voit bien, que les enfants de la France, comme ceux qui sont au Tchad ou au Gabon ou au Sénégal, peuvent faire des coups d'État de toutes sortes. Ils sont soutenus. Mais quand ils font l'objet de sanctions extrêmement sévères ma tënk ko ci wolof rapidement ni tey li xew dafa doy wax dañu gën a nërmeel les institutions de la république la république est terre maanaam réew mi dafa nërmeelu ba jeex ndax nag a jekk dafa am ñu doon diiñ jiiñ justice bi ni dañu corrompu ñu leen di yóbbu ci yoon waaye tey assemblée nationale ak gouvernement bi ak président ci rapport bu ñu teg ñoom ñoo jiiñ justice bi ni dañ leen corrompre dañ leen ger dama ne d'habitude ay xale ay opposants ñeneen ñoo doon ni gouvernement bi dafa corrompu bii yoon ci texte bu ñu yónni président la république validé ko parlement di bind ko ci rapport ci boppam nee nañu premier ministre Amadou moom mooy corrompre ay juge loolu lu doy waar la bu fekkee ni amatuñu lu leen dese ci ay pexe lu muy tuumaal justice réew mi ak gouvernement réew mi dara desutul ci réew mi parce que bu boobaa nit ñoo nit ñëpp doon wax te gis ko ci rapport Covid bi gis ko ci li fi xew gis ko ci alal ju bëri ju ñuy am ñoom dañuy gën a fësal ni effectivement guerre gi daf lu doy waar la ci Sénégal comme ñoom ci seen bopp ñoo koy reconnaître. Honorable est-ce que gëm nga tey date bi ñu avancé ci pour euh, élection yi pour le 15 décembre. je ne crois pas le président que vous avez en face. Vous avez dit qu'il allait réduire son mandat de deux ans. Il ne l'a pas fait. Il a fait un référendum en vous disant qu'on ne peut plus toucher à la Constitution. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il a à la Constitution. Sénégalais, Sénégalaises, il n'y a plus rien à attendre de de ce président-là. Quand ils nous ont donné le texte, ils nous ont dit que les élections allaient avoir lieu au mois de 25 août. Les gendarmes nous ont évacués de la

parce que le président est en mauvaise posture. Aujourd'hui, lorsqu'on a arrêté Karim Wade en on nous a dit que c'est la tête d'Abdiamal Aki, c'est une demande des Sénégalais. Quand on a attaqué Khalifa on nous a dit que c'est une affaire de caisse d'avance. Quand on a attaqué Ousmane Sonko, on nous a dit que c'était un viol. Ensuite, on nous a dit que c'est je de mineur. Vous voyez, à chaque fois, il y a un mensonge pour masquer. À partir il n'y a que la honte et la République sénégalaise. Nous demandons au peuple de se mobiliser, de se mettre debout li fi xaw aw matuma lu may gëm ci régime bi président Macky Sall daf leen ñëw dina wàññi mandaam ñaari at wàññiwu ko mu dem référendum nañu à de maintenant constitution bi lu jëm ci mandat bi kenn dootu ko laal tey gis ngeen ni laal lañ ko kon na sénégalais yi régime bi amatul lu mu ñuy wax ba ñu gëm ko amul lu ñuy wax ba ñu nangu ko lenn rek a fi des mooy xeex taxaw fulla ak fayda pour sauver suñu démocratie ba ñuy song nag Karim Wade en 2012 dañ ñu waxoon tag des biennement ak yi ne sénégalais yéen a ko bëgg ñu dem ba ci biir xam ne dañ ko doon xeex ñu song Khalifa Sall ñu ne affaire u mairie Dakar la ñu song Ousmane Sonko ñu ne parti boobu dafa violent tey gis ngeen ni président bi leen rek moo ko ñor mooy ni mu dafa toog nguuram et nguuram jeex na à partir du 2 avril kon sénégalais nañ jóg am farlu am fulla am fayda jële fi moo des Eh, kay kay lu ñu yàlla may ci ay moyens lu ñu yàlla may en tout cas ci ay jumtuwaay nga xam ne mooy euh, constitution bi mooy cote électoral bi nañ ko jëfandikoo nañ ko yóbbu conseil constitutionnel nañ ko yóbbu fépp fa nga xam ne mën nañ ko fa euh, daane te lii yaakaar naa ni c'est de manière flagrante c'est anticonstitutionnel respecté wul règlement intérieur respecté wul dara jaay doole rek ka fi nekk donc yaakaar nañu conseil constitutionnel dina def liggéeyam leneen ni nag c'est bataay bataille ak candidat yi nga xam ne tànn nañ leen nga xam ne ñoom actuellement ñoo ngi campagne électorale donc campagne électorale boobu dañ ko continuer sénégal yi ànd si ñu campagne donc loolu daal mooy wax ji voilà donc euh, di naqarlu lu fi xew di wax ni quand même Sénégal le Sénégal et les Sénégalais ne méritent pas ça mooy ku mënul ku mënul wax dëgg ah si lu xew Sénégal ñëpp gis ko. askan wi